ñu ngi koy jaajëfal euh, Djibril Niang mbokk yi ci noonu ñu jukkil leen euh, xeetu yéenekaay yi fas yéene ko doo rek euh, bi di las ci xetam bu njëkk mu ngi ñu dégtal accident gi am démb ca yoonu Louga fa tolloog sàkkal jur fa musiba lu toll ci ñaar fukki doomi aadama ak benn ñoo ca faatu yéenekaay bi ne accident la goo xamante ne foo ko natt ci jafe-jafe weesu na ko ñaari woto ñoo fa mbëkkante benn ba woto njaganjaay la gu yeboon ña doon dem xew ba ca des mbëkkanteek benn camion euh, ci tamit wotob Njaga Njaay bak euh, mbaam ga mu doon moytu euh, jur fa musiba mu ngi ci yéene yi di las ci xëtam bu njëkk yéen kaay eh, geneen di Vox Populi mu ngi ñuy dégtal eh, gannaaw ñeen fukki doomi aadama ak eh, benn yi faatu ci accident ca 6 kilo foofee ca diwaanu Kaffrine yàggut fan yi ñu weesu démb dundaat nañu benn accident ca yoonu sàkkal lu toll ci ñaar fukki doomi aadama ak ñaar ñoo ca ñàkk seen bakkan accident yooyu nag bokk na ci mbaam gu doon jéggi tali ba Euh, jural leen musiba euh, ak i tamit euh, vitesse gu ëpp ak surcharge woto bu waroon a yëpp fanweeri doomi aadama ak ñaar mujjee nag toftal ca fukk ak juróom. Eh, ba tax na yeboon ba diis eh, gan ak i tamit li nga xamante ne eh, mooy xew ci wàllu dawalin gi ba noone ñaari woto ya di ca mbëkkante foofee ca sàkkal jawr gi ñu dénk premier ministre amadu Ba ma nga foon ngir masawu askan wa jàpp ne daañu gën a taral dogal yi nga xamante ne jël nañ ko dootuñu nango woto yi di demee nu mu leen neexee ci kaw tali bi Eh, tali boobee sax accident yi fi am rax na bu ñu sukkandikoo ci jaraaf Yuusu Ndoy bu wokk wokkaam eh, xamle ne tali bi rax na ay jinne la ko sooka la ko sooke mooy eh, tegum kawdiir yi maanaam tegum ci nag kubéeru cin yi nga xamante ne am na fii bokk na ci liy jógloo jinne yi ba tax na musiba di fi amee ne bu sañoon daal ñu teg ci suuf tegum kawdiir yooyu le ci mim réew di Sénégal jaraaf Yuusu Ndoy moo ni waxee ci biir yéene yi di Vox populi yéene kaa bi di euh, Sud Quotidien ci xëtam bu njëkk mu ñu dégtal la xew ca Sakal accident googee nga xamante ne am na bu weesoo accident gi fi woon ca 6 kilos yéene cabinet bi xew démb ca yoonu Louga foofe ca Sakal lu toll ci ñaar fukki doomi aadama ak ñaar ñoo ca uh, faatu fukki doomi aadama ak uh, juróom uh, jële ci ay gaañu gaañu yu métte métti premier ministre magafoon ne daañu jël dogal jëmme ci wàllu surcharge ak daw bu ëpp yéen cabinet ci lu motul semaine lu toll ci juróom benn fukki doomi aadama ak juróom ñàkk nañu seen bakkan ci accident yile Euh, yéen a bi di le quotidien ci xëtam bu njëkk euh, Sénégal a ngi dund euh, semaine gu deretal ay bakkan rot gannaaw la xew ca si kilo yàggut ñu ngi jooy te suñu rongoñ feragul démb Sénégal soobu ci dëj foofe ca sàkkal lu toll ci ñaar fukki doomi adama ak ñaar ñoo ca faatu ci accident googee doxoon ci diggante woto camion ak Njaga lu toll ci ñaar fukki doomi adama ak juróom ñaar jëlee ci ay gaañu gaañu yu métte métti Euh, kilifa yi maanaam nguur gi ne dogal yi nga xamante ne teg nañ ko ci table ji euh, nañ ko jëfee ca na mu gën a gaawee mu ngi ci le quotidien yéen a kaabi di enquête di ñu ko enquêtal euh, tali bi la cay xew doy na waar lool daanaka musiba la jéye la foo ko nat weesu na ko ñaar fukki doomi aadama ak ñaar yu faatu ci accident gi am démb ca yoonu Louga yéen cabinet eh, ki nga xamante ne mooy eh, maanaam meeru gox ba jàpp ne tamit eh, gox la gu sonn lool demb ndax accident googee na mu ameek ña ca bokk daanaka njaboot yu jegewantoo wantoo lañu ñoom la seen bakkan rot ci googu lépp accident xewee ca yoonu Louga. yéen ki bi di l'observateur génnagul yoon googule mu ngi ñuy dégtal ne lu ëpp tuuru li xew ci tali bi yéeme na lool accident say su ne la xew ca yoonub Ngén saar foofee ca Louga ñaar fukki doomi aadama ak ñaar ñoo ca ñàkk seen bakkan ab woto camion moo fa mbëkkanteeg eh, kaarub Njaga Njaay eh, kaar bak mbaam nga mu doon moytu moo sookee accident ba eh, bokk na ci limu doom yaadama ya ca ñàkk seen bakkan lim nga takku na ña ca jëlee gaañu gaañu. itamit euh, lim ga euh, bari lool yene cabinet am na ci ñoom ñoo xam koo xamante ne mu ngi doon sowee ñàlloro ci googule accident ndekete njabootam la doon sowee te xamu ko woon mu ngi ci l'observateur ci xëtam bu njëkk Amadou Ba premier ministre ma nga woon ca Louga ne nañ fi dakkal surchargé yëpp ba fees dell ak i tamit daañu def seen euh, kéemtalaay kattan ba vitesse yi ñu koy yemale ci quatre-vingt-dix kilomètres à l'heure euh, bu ñu sukkandikoo ci premier ministre Amadou Ba ci l'observateur yéen kaa bi di l'info ne Sénégal a ngi euh, dund lu metti ci jamono ji ñu toll ci musiba yi tukkee ci tali bi ñeel accident gannaaw la xew ca yoonub Kaffrine ñu ngi koy jooy te noppeeguñu démb lu toll ci ñaar fukki doomi aadama ak ñaar eh, seen bakkan rot eh, ca yoonub sakkal ñaar fukk ak juróom-ñaar eh, jëlee ci ay gaañu gaañu yu méttee métti nguur gi ne. dogal yiñ ci jël duñ ci deltu ginnaaw seen yéene mooy fexe ba yokk kaaraange gi Eh, ci eh, tali bi yéenekaay bi di libération xëy duñu ko xaymal eh, ci diiruk semaine lu toll ci juróom benn fukki doomi aadama ak juróom ñoo ñàkk seen bakkan ci tali bi boo ko boolee maanaam juróom fukki yooyu ak juróom mu ngi tukkee ci accident gi amoon keroog ca six kilo foofe ca yoonu Kaffrine ak bi ko ñaareel démb amee ca yoonu po Louga ba tax na xayma gi gën a takku yéen ne dogal yu takku nag moom la ci nguur gi jël ngir fexe ba euh, fànq yile accident ak fexe ba kaaraange gi gën a jàppandi ci kaw euh, tali bi yéen a bi di bés bi jour mu ngi ñu dégtal ne Mansour fay jor ngi ñu dénk euh, wàllub dem ak dikk ndax dafa war a tekki ndombol tànkam wala boog njiitu réew Macky Sall mu war a jël dogal tekki ndombol tànkam yéen a bi gis ne Mansour fay mile jur na surcharge ci ndoddu njiitu réew mi euh, Macky Sall gannaaw cool accident yeeg euh, grève transporteurs yi rapport Cour des comptes ak nañ ko ca tuddee yéen a bi di bés bi le jour duñu ko xamal xamle Eh, le soleil ci xëtam bu njëkk mu ngi ñu dégtal eh, Sénégal mi soobuwaat ci dëj eh, bokk na ci ñaar fukki bakkan ak ñaar yi ci rot démb ñaar fukk ak ñett jëlee ci ay gaañu gaañu yu metti am na ci juróom-ñaar yoo xamante ne ña nga Sowétas yéen cabinet juróom-ñaar ci ñoom daanaka yóbbu nañ leen indi nañ leen fii ci Ndakaaru jaare ko ci ab hélicoptère premier ministre Amadou Ba ma nga woon ci daar daar foofee fa accident ba amee ca diwaanu Louga. Eh, ngir masawu askan wa rawatina tamit jël matuwaay eh, ci wàllub eh, tali bi bu ñaxtu gi chauffeur si bëggoon a amal tey ji bu minuit jotee waa aftine duñ ci bokk watop tataay dañuy wéy di daw yéen kab di alerte quotidien mu ñu dégtal accident yi ne alerte jot na ndax la xew démb ca sàkkal ca yoonu yoonub Louga musiba la lu toll ci ñaar fukki doomi aadama ak ñaar yu sa seen bakkan roto ci accident am ñu ca jëlee gaañu gaañu yu métte métti yéen kaay baa ngi ñu dégtal accident yooyu yeeg grève bi nga xamante ne moom la chauffeur si di amal ci jamono ji waa aftu ne bokkuñ ca Eh, yéen kaa bi di 24 eh, heures mu ngi ñuy dégtal li xew ci miim réew eh, yéen kaa bi gis ne nag nguur gi na wàññi wax bi te bari la muy jëf foofee la ko askan wi di xaare mu ngi ci yéen kaa bi nga xamante ne mooy 24 heures ci xëtam bu njëkk ngeen saarak accident ga fa am ñaar fukki doomi aadama ak ñaar yu ca ñàkk seen bakkan kedugu am keneen ku fa ñàkk bakkanam yéen bi ne boo ci dolle la xew keroog fi nga xamante ne mooy ca yoonub 6 kilo foofee ca Kaffrine ak bi xew dem bu ca Louga euh, li xew ci wàllu transport Alassane Ndoye ak ay ñoñam ne daañu gaare seen woto tey ji ci talaata ji bu minuy jotee waa AFTU ne euh, bokkuñu ci googu lépp euh, gereefu ñaxtu mu ngi ci 24 heures. réew mi quotidien mu ngi ñuy dégtal li nga xamante ne mooy Sénégal ak li fi ne ci wàllub grève ak i tamit accident ba tax na Sénégal soobu ci déj gu métte métti yene cabinet eh, foo ko natt ci jéeya weesu na ko lu ëpp juróom benn fukki eh, bakkan yu rot ci accident eh, ci fan yu néew yene cabinet sax ci wàllu transport ak grève bi Alassane Ndoye ak ay ñoñam bëgg amal tey ji ci talaata ji waa aftine bokkuñ ci bilan ba génnaa yokk ca yoonu sàkkal toll na ci ñaar fukki doomi aadama ak ñaar bu ñu sukkandikoo ci réew mi quotidien yéen kaa yi di euh, direct euh, news euh, di ñu xam lekk li xew ci talibeek accident yi ne gouvernement bi maanaam nguur gi tey ji la gën a dogu taxaw ci dogal yi nga xamante ne jël nañ ko ngir gën a yokk kaaraange tali bi yéen kaa yi di les échos ci lu ñeel wàllub Sweet Beauté diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko beneen requête gu bees goo xamante ne avocat Ousmane Sonko bëgg nañ ko jébbal yoon yéen kaa bi xëy jël yoon wutali yoonu Louga ak accident ga faam démb ñaar fukki doomi aadama ak ñaar yu fa rot yéen cabinet jote gaa ngi wéy eh, fii ci eh, mim réew yéen cabinet di eh, Walf Quotidien dikk ak ñun ci wàllu troisième mandat candidature njiitu réew mi Macky Sall ñamu seqal majorité bi maanaam coalition benn Bokk Yaakaar am ñu ci tàmbalee fippu xam le ne njiitu réew Macky Sall warta daganaat bato askan wi ci élection présidentielle yu 2024 ka ca mujjee addu di Abdoulaye Wilane Eh, mi yor kàdduk parti socialiste eh, Walf Quotidien tamit taxaw na ci accident yi am ci mim réew eh, ci lu jege benn semaine lu jege juróom-ñaari fukki doomi aadama ñàkk nañu seen bakkan ci yoon yi yéen kaa bi xëy duñu ko yeggee moom Walf Quotidien li Quotidien ne li xew ci réew mi dafa doy waar lool transport gu jaxasoo accident yu bari lool chauffeur suy ñaxtu bakkan yi rot tere taligu daretal yéen kaa bi ne deret sax tuuru na démb ca yoonub euh, Sakal foofe ca Louga ñaar fukki doomi aadama ñaar ñoo ca euh, faatu ci accident yéen a di turbine ne ci lu ci diirug euh, juróom-ñetti fan. ñaari accident yu doy waar ñoo fi am lu toll ci euh, juróom benn fukki doom aadama ak ñeent euh, ñoo ca faatu yéeni kaa bi xeeduñu ko leeralal ci xëtam bu njëkk euh, bokk na ci tamit fippu gi am ci coalition benn Bokk Yaakaar am ñu gis ne njiitu réew Macky Sall warta daganat troisième mandat war ko amal ci élection présidentielle yu 2024 yi ñu jëm le mandat ci xëtam bu njëkk gannaaw 6 kilo accident ga fa am ca yoonu Kaffrine ba lu ëpp ñeent fukki doomi aadama faatu ca bile yoon Sénégal dundaat na beneen accident ca yoonu Sakal foofee ca Louga ñaar fukki doomi aadama ak ñaar ñoom ñoo ca ñàkk seeni euh, bakkan na mu ngi ci le mandat l'évidence ci xëtam bu njëkk mu ngi ñuy dégtal lu aju ci euh, maanaam euh, tolluwaayu réew meek mbégte mi maire Fally Seck maire bu Ross Béthio am ki émergence gi mu ne am na ci nguruk euh, Macky Sall mu ngi ci l'évidence yéen a bi di Dakar Times mu ngi ñu dégtal ne coow li topp njiitu réew Macky Sall bokk na ci accident yi bari lool ci mim réew ay bakkan di ci rot e, ñaxtu chauffeur si bokk na ci rapport Cour des comptes mi jur coow ba ba léegi ak i tamit euh, li xew ci euh, li nga xamante ne. Eh, mooy eh, tolluwaay réew meek njëgu dundu geek yeneen ak yeneen yéen kaabi di Dakar Times wone nataalu njiitu réew Macky Sall mu mel ni ko jaaxle wala boo kuy xalaat yéen kaabi di stade xëy duñu dégtal gaynde yi nga xamante ne daanaka Uh, dugal nañu ay bu yenn kaabi di ñu ko yeggee Eliman ak iso Habib ak Diagne wone nañu seen bopp ca club yañu ne mu ngi ci stade yéen kaabi di suñu làmb mu ngi ñuy dégtal gannaaw ñeenti at yamu ne woon euh, ca Espagne euh, moom Zarco ñibbisi na ñibbiseek ndam euh, gannaaw bu mu daane ki nga xamante ne Ada keroog ca arène nationale yéen kaabi xeeduñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk moom Zarco mborub Grand Yoff ak tolluwaayam ci làmb jekk la taxoon mu dem bitim réew waa jëli boppam bennoo ne muy dellu soit ci euh, arène bi yem ak fu ñuy jeexalee xetu yéenekaay yi ci baatu askan wi lu nuyoo tàggoo euh, tàggatoo jot na ci xibaar jaajëfal Isaaxa Diagne mi ne woon ci machine bi euh, feggoog Ajaratu Penda Diallo yi mbokk yi di leen jaajëfal ci kóolute gi ñu yendoog jàmm ak programme leeru jamono yàlla na jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew mi.